asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu dikkee leen kàddu yoo xam ni mi ngi bàyyikoo ci cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifi général des mu jëm ci ndigal loo xam ne joxe na ko mu jëm ci ni ñu war a taxawoo wàllu njàngale mi ci biir dëkk bu tedd bi di Touba ak lu aju ci ni ñuy saytoo jàkka yi ak jumaa yi muy ndigal loo xam ne mi ngi ko joxe ci teewaayu sëriñ Ahmadou yi mi nga xam ne mooy jiitu daayira Rawdu Rayaahiin ak sëriñ Afiya Buso mi nga xam ne moo jiitu daayira Muxaddamatul Xidma bu jumaa ju mag ji muy kàddu yu mu yëkkati ci bisub dibeer fukki fan ak juróom ci weeru gàmmu atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi fii ci Touba Daaru Minan dëppoo benn fan ci weeru octobre atum 2023 bismillahi rahmaani rahim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 yàlla na tey moom may nu ndaje mi ñu daje ko ma daje koog bokk yu baax yi nga xam ne diine ji rek mooy seen itte taalibe gi ak ak taalibe diine ji mooy seen itte mooy seen itte ak loolu rek mooy seen liggéey na na na na diine ji gën nasoo na mu gën a Euh, doxe euh, na mu gën a marché euh, loolu mooy wàllu diine ji wàllu taalibe gi itam ala kulli xaalin in fokk nit ñi ñu gën a xam sëriñ bi gën a gën a gën gën a xam aw doxinam waaw te te def ci sunu kattan yëpp sunu yitte yëpp sunu xel yëpp sunu kattan yëpp ñu def ko ci jéem xam kan mooy sëriñ bi jéem xam lan moo di aw doxinam waaw te te te nekk ci nag nekkal ko ci. loolu mooy lii mooy li ci mooy mooy mooy mooy li am solo mooy muy itte ji kon nag euh, euh, képp koo xam ne euh, dëkk bu sell bii sëñ bi sàkkul ko boppam digg mu boromam ba amee ko ni ko bëgge mu dox ba agsi fii kon képp koo xam ne da yàlla daa xiirti ñëw fi na nga xam na nga xam ne dëkk bi dëkkum ndigal la ah, te it bëgg nañ ñëpp maasa ci benn doxin bi muy doxinu sëriñ bi waaw ah, loolu bëgg nañ ñëpp koo xam ne yàlla xëy na ci nga jëm ci dëkk bi rawat na nga sax nga ne da ngaa mën a jàngale diine ba di ko jàngale loolu lu mën a xew la ca jiitu mooy eh, nga nga nga jéem a xam kan muy sëriñ bi jéem a xam lan mooy doxin boo ko defee bu fekkee ne am njàngale moo la fi nga xam mu wóor faw njàngal njàng fii liñ fi jàngale daal mooy njàngalem sëriñ bi njàngalem sëriñ bi nag na lépp ndax moom aqida ashari moo fi nekk mazhabul maliki moo nekk tasawuf jund yi moo fi nekk boo boole yooyu yëpp delluwaat ci charia ak xaq eh, bàyyiwul dara gannaaw waaw kon nag loolu eh, moom waxuma la sax bàttu sëriñ bi ak ak digg ma boromam waaye saayir soosu rek dafa tënku dafa doy tënk tënku ci lépp ci soobu yoonu yàlla fas yéene ko jaamu na mu na mu na mu gën a na ko gën a le loolu kon Euh, ginnaaw noon la demee nag maa ngi joxe ndigal loo xam ne euh, euh, loo ci fas rek mooy ñëpp nu maase fas yéene sax dàkk ci liggéeyal sëriñ bi jaamu sunu borom na mu gën na gën a rafet waaw liggéeyal ko ci suñ lépp suñ lépp lu baax lu ñu cay def rek nu fasal ko ci def def fas ci léegi fas yéene ko ci à liggéeyal loolu mooy li nga xam ne moom laay moom laa joxe ndigal kon na ñëpp ñi nga xam ne noo bokk noo noo noo jëm si nañ fii ci Tuubaa de bëgg bëgg fee bëgg fee liggéeyal bëgg bëgg fee liggéey ci diine nañu xam ne eh, ci loolu amul nen fañ koy mën a jaare fudul ci jéem xam sëriñ bi jéem jéem a jéem a xam doxinam eh, fa fa fas yéene ci a nekk ba Cheikh Ndiaye nekk eh, ndax bàyyiwul dara gannaaw di di nu mu waroon a diine yëpp lu aju ci diine loolu mi ngi ci biir loolu lu aju ci taalibe eh, ci bu njëkk ca saxaabu rasul ba léegi lépp mi ngi mi ngi biir mi ngi ci biir yoon wi waaw kon nag yoon wi da wuti wutul fenn dara lépp sëñ fàggul nañu ko juwoon na ci boromam am nañ ko amee nañ ko nan nan nan ko nan ko bëgge eh, kon jaamu yàlla ak liggéey sëñ Tuubaa rek moo fi nekk te yàlla tax kon nag ñëpp xam ne ndigal li dox doxin benn la benn rek la mën a doon waaw doxin bi rek benn bu moo xam ci njàng mi la jëm moo xam ci doxinu jàkk ji la jëm waaw kon doxin bi na benn rek la mën a doon kon na ñë na ko na ko ñëpp xam lépp lu ci lu ku jógati bëgg bëgg bëgg bëgg a liggéey surtout ci wàllu diine eh, eh, da nga da nga laaj yoon ba bañ wax la ko nga jaar ci yoon wa ñu digal la nga defee ko noonu loolu mooy digal la moo xam ci njàngale mi nag moo xam ci jàkk yi moo xam ci jàkk yi kon eh, na ko na ko ñëpp xamee noonu te xam ne kat loolu mënut a ñàkk dana nu jaral lu ne nag loolu tegu loolu aw aw yoon ñun ñëpp nu maas si dana nu jaral suñu suñ waaw kon nag eh, nguur gi nga xam ne moom dëgg la yàlla def ànd àndandoo nguur gi fi nekk loolu itam ala kulli haal ñii bokk yu baax yi dox nañ lépp te te nañ leen ko te jubóo nañ ci ñoom eh, kon nag lu ci bëgg manqué itam daanoo ànd nguur gi faj faj loolu na mu ko na nañ ko war a faje waaw na ko ñëpp xam ne noonu ci bëgg manqué rek danaa dana dana dana ànd ak dana ñi Euh, nekkoon fi sëñ bi ba ba nokki bi alhamdulilah rabbil alamin sëñ bi am li mu bëgg nu euh, euh, bokk fi nekk loolu kon nañu xam ne lépp lu ci bëgg a jaaxal nag daan ànd ak faj loolu ak nu ko mën a faje rek waaw loolu rek ñëpp xam ne di gën a santaat bu baax suñu borom mi nu boole sëriñ bi di gën a sëriñ bi bu baax mi xam ne fàggul lépp biir bi tey ëllëg lépp lu ñuy jëriñ tey ëllëg ci biir ci biti rek fàggul nañu ko alhamdulilah rabbil ñoo ngi leen di seeral googu cant gën ko bokk ak yéen di leen sant yi tax seen taxawaay ndax di taxawaay dara manqué wu ci yéen bee diis rek yitte ji rëy waaye dara manqué defe ngeen li ngeen leen waar def lépp dara manqué wu ci kon nag li ñuy ñaan rek mooy suñu borom mi nga xam ne mooy def dindi mooy def ak dindi te telewul dara mu gën noo gar noo tawfeex sëñ Tuubaa mu gàtt noo tawfeex sëñ bi rek lépp dana yomb incha allah lépp dana marché lépp dana mel na du ko bëgg bu ko defee nag loola mooy tax suñu xel gën a dal mu xam ne li sëñ bëgg noo ci <laughs> noo ci gannaawam suñu lépp ak ndigal yu leer yooyu nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké joxe na ko mu jëm ci wàllu barabu jàngukaay yi ak jullikaay yi ci dëkk bu tedd bii di Touba Serigne Ahmadou Badawi mi nga xam ne moo jiite daayiratu Rawdu Rayaahin dikkaat na ci nan lañu ñu nosee woon liggéey bi yan ñooy kuréel yi nga xam ne ñoo ci doon liggéey ak yoon yi nga xamante ni képp koo xam ne bëgg ngaa saytu barab yooyu muy barabu jàngukaay wala jàkk ak juma ci dëkk bi ci yoon woowee ngay jaar ñu déglu ay kàddu. asalaamaaleykum wa rahmatullah su tàmbalee ci ziar ak ak ñaan ñu tibbee sunu biir xol jëm ci ko Cheikh Mouhamadul Muntaqa ñaan sunu borom bàyyil na ko fi may ko wér ba yéeneem ji mu am ci toolu sëriñ bi. ci lislaam mu yeggale ko fu mu ko bëgg a yeggale di ko siyaare bu baax a baax ci guddi gu guddi gii ñu génn nga xam ne mooy guddi seriñ bi di laylatu mawlidin nabi ku koy màggal rek sëriñ bi nga koy nga koy defle te moo wax ne defoon naa ko ca ama achachine boobaak léegi téeméeri at ak ñeent fukki at ak juróom la axle axyeytu mawlidi nabi min achachine waqaada lii fawqal munaa fii hamchachi kon boobaak léegi mat na téeméeri at ak juróom fukk nu fanaane ko fii mm-hmm. ci wetu ku tedd ki di jàngi xasidaam yii nga xam ne siiratu sallallahu alayhi wa lépp nafar nañ ko keroog ci guddi gi mboolem tagg yi nga xam ne nit mas na ko tagg sallallahu alayhi wa yi sëriñ bi dafa ko kawe te jàng nañ ko fi gépp julli guñ mas julli ci moom fanaane nañ ko fi waaye mboolem ñaan yi nga xam ne ku baax ki ñaan na ko jëmee ko ci bindee fi ñaan nañ ko fi te gëm nañ ne wóor nañu ne sunu borom nangu na ko dundal dundal guddig yonent bi salaatam ci wetu Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu mm, mm, mm. amiin rek lañ def tefli ñaan jóge ci Mbakke waaye fas nañ ci nga yàgg fitaan taan rek wér ngi la ci siyaare waat bu baax a baax a baax a baax di am mbégte lool ci jataay bii nga xam ne am nañ ko tey ci sa ndigal muy ñaari ndigal yoo xam ne yëpp dang ma ko jox te benn mënu ci ñàkk muy li jëm ci jàkka yi ndax ku ne xam na ne Tuubaa moom daara la bu wajal buyuti kullaha masajida mm-hmm. yaa naafiyan man laa yakuunu saajida mm-hmm. kon Tuubaa fépp jàkk la mm-hmm. waaye nag loolu dafa dafa dafa firndewu lool biir ba koñ boo dox foo taxaw fekk fa jàkk ak jubaa waaye lislaam dafa nosu leen lu nekk dañ ko war a nos moo nga joxe ndigal nag ngir ñu nos ko seet fu nekk bala ñoo fu ñu tabax itam diggante bi masaafa bi nga xam ne lislaam da ko wax ci diggante ñaari jumaa ñu sàmmonteeg moom waaye xutab yañ fay def mu jëm ci mbooloo yi mm-hmm. moom itam war a dëppoo ak dëkk bi ak njàngalem sëriñ bi mm-hmm. waaye eh, nañ ko fay defee itam mm-hmm. lépp wara a si ci ndigal ndax Tuubaa kum ndigal la te yaa yor ndigal li loolu itam doon loo xam ne ñu boole ñu ko ak mbooloo mii di muqaddamatul xidma ñi am tawfiix yor ne barab bu mag bii di jumaay Cheikhul Xadim ji nga xam ne mooy yaakaari murid yëpp ñu jox ndigal si ñaar fii bu so ak njabootu muqaddamatul xidma ñu ànd liggéey boobu bi ñu tase woon fi tey fas yéene soobu ci ndigal loolu jëfe ko bi ci dolli ko it mooy sa liggéey bu mag bi bi nga ko yëkkateeg léegi ñëpp dañoo fax jëm ci mel ne nag njàng ak jàngale moom daa doon moo xewetu jamono fi mu ne ñi saytu wàllu googu wax nañ ne boobaak léegi lu mat ñeenti téeméeri école gis nañ ko fii ci dëkk bi te lu nosuwut rek day daal di am neneen lu mu tudd loolu itam bi ñuy waajal sa liggéey bi nag waajtaay wi dañ ne woon ni nga ko waxee woon rek li tàmbale ci kii kii dal baasin ba ci njobaxtan la ñu kon ñu ne bàyyi woo menn njàng bàyyi woo kenn ku bëgg a jàng bàyyi woo lenn lu am njariñ lu ñu war a jàng mu amoon nag ay ay kuréel ñu koy wax ay commission yu mat fukk ak juróom bu ci ne am lu mu féetewoo woon alhamdulilahi rabbil alamin yëpp noppi nañ seenub liggéey bi tax ñu tase fii tey nag mooy bi nga xam ne ñoo waroon a nos nag njàng mi nekk ci dëkk bi ak mi fi war a ñëwaat ëllëg mboolem jàngukaay yi fi nekkoon yëpp ñu tënk leen ñu am yoon woo xam ne ci la ñu dox wu dëppoo ak sa ndigal dëppoo dëkk bi te loola rek mooy lislaam mooy njàngalem Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu waaye bu ci nekk nag ñu xool lañ fa doon jàng saytu ko la ca manqué woon te mënu caa ñàkk ñu dugal ko ca te lépp mooy njàngalem lislaam ak atarbiyal islamiya atarbiyal muridiya te loolu ñëpp ko soxla ñi nga xam ne ñoo yor njàng mi itam ñoom ci seen bopp xamoon nañ ne am na lu ci manqué nangu nañ ko itam mm-hmm. am na ci ñu wax ne nag jàpp nañ ne lu koy jubanti fii lay jóge mm-hmm. loolu nag moo tax waajtaay wi compuñu ko dañ ko jox àqam ba mat sëkk lenn lu ci ne lañ jàpp ne lu ñu ca war a def la def nañ ko ca ñu bëgg nag sa ci sa ndigal lii nga joxe mboolem ñu yori jàngukaay ci dëkk bi ñu tënku ci loola te loola day waral ku fi jànge da jàng li ñuy jàng feneen ci biir réew mi waaye da nga am loo xam ne amul feneen ci biir réew mi loo xam ne te mënta lu mënta ñàkk la loolu kon mooy solos daje bi nu fas yéene nag daal di soobu ci liggéey bi li ci aju ci wàllu li ñuy tuddee école it dañ ko ànd ak ñi nga xam ne ñoo yor wàllu njàng moomu ci réew mi waxtaan ceeg ñoom tëral ko ci anam goo xam ne ñoom rafetlu nañ ko wax ne itam dañuy ànd ak nun ci doxin wa bu ko defee luñ ca war a jubbanti ñu jubbantiku ca lu ca doon loo xam ne luñ war a saafara la ñu ànd kook ñoom saafara bala fee kenn ubbeetib jàngukaay itam day am ndigal këyit woowu nag lay yóbbu ca Mbàkke fa la ñu ca ñu yor njàng ma fa ñu li ñu tudde e ñoom ñu soog a saytu ñoom itam ba mën koo jox ndigal nga xam ne ëllëg ku fee jàng bu amee diplôme dana ko mën a jëriñoo ci réew mi dana ko mën a jëriñoo ci bitim réew loolu daal moo ci mooy mooy tënkub jotaay bi di àndaan nag di ñaan rek nga yàgg fi te ànd ko gër di sant bu baax di la gërëm ci tawféex ji nga ñu defal ci liggéeyal sëriñ bi ndax kat wax nañ ne mag ñu bari dañ daan dàkk bëggu sëriñ bi waaye ñun ñu am tawféex yi nag sëriñ bi nañu lii laa bëgg defal leen ma ko te defalee leen ma ko nii loolu Mbàkke ñu ngi la ci sant di la ci gërëm ñu ngi sant di la ci gërëm